jëf euh, mbokku téléspectateurs yu télévision Prestige TV Salam salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu dellusiwaat ak yéen comme nous ñu ko defee aljuma bu jot 21h euh, jàpp 22h euh, une émission ganu Prestige tey nag ñu am mbégte Nous di ci dalal ki nga xam ne moo di Demba Niang du président du mouvement alternatif citoyen andi soppi Thiès ànd soppi Thiès moom la ñu tey fas yéene seqal waxtaan suñu émission ganu Prestige président salaamaaleykum. maaleykum salam, Bamba maa ngi lay nuyu de les ziar bu baax remercier ci invitation bi. di nuyu euh, seen PDG. Pape Doumbia ak personnel Prestige TV et di ci profito également de nous waa Thiès ak ñi à travers euh, le monde à travers seen chaîne YouTube. Mm-hmm. alternative citoyen André and président tur bi euh, xaw na xaw na yéeme euh, lan la ñu war a soppi Thiès président. waaw soppi euh, boo ko jëlee changement la. Mhm. changement la c'est-à-dire bu ñun bu ñu toogee def évaluation ci euh, gestion municipale à Thiès muy. commune boo jël à Thiès nag. la ville ak trois communes. bu ñu defee évaluation gis ne ni koy doxalee mënoon na gën a en tout cas mënoon am beneen doxalin buñ ko defee ñun bu ñu ñëwee am alternative bu ñuy proposé dañuy wax soppi parce que alternative en fait link la entre alternative ak soppi alternative c'est une nouvelle offre lu bees la ñuy indi. parce que gis nañ ni yor commune yi muy conseiller muy maire yi ni ñuy doxalee ñun am nañ beneen façon bu ñu gis donc beneen façon boobu boo ko indee da ngay soppi li fi nekk moo tax ñu ne ànd soppi Thiès. alors yow non seulement. Mhm. dañuy soppi doxalin boobu mais bu ñu soppee doxalin boobu aussi dañuy soppi xar kanamu Thiès soppi condition de vie quotidienne des Thiessois donc moo indi ànd soppi Thiès. kan mooy kan mooy Demba Niang ba war a taxaw euh, ne dafa war a soppi Thiès ba taxawal euh, un mouvement alternatif citoyen ànd soppi Thiès. un Thiessois un Thiessois moo taxaw. Mhm. parce que Thiess le dëkk fii la Yaro, fii la màggee parce que Thiess a tout fait pour lui mu am xalaat. And ci ak mbokam yenen ay Thiessois parce que du man kese su su changement don am du man kese ce sera avec tous les Thiessois donc man lima nek nekk motax ma sañ revendiquer ne damay soppi Thiessois lan moy sa jaar-jaar man jaar-jaar ci politique wala professionnel professionnel ak politique yëpp professionnel d'abord bu professionnel inspecteur du trésor là donc université Cheikh Anta Diop donc lycée Malick Sy université Cheikh Anta Diop après def concours ENA mhm de servir au ministère des finances loolu mooy sama en tout cas situation professionnelle. Mhm. bu dee politique euh, jot naa am ay link xam nga li gars yi di wax link c'est-à-dire du adhésion bu active. Mhm. ci ay. jokkalante ay bànqaas daal. voilà jokkalante ak ay homme politique yu bari wala ay couleur politique yu bari waye sama def politique activement ci and soppi ties la commencé. Mhm kon dafa mel nii bu ma la déggee euh, li ñuy wax école du parti te ñu bari ci euh, politiciens yi di fa jaar yow bokkuloo ci ñi nga xam ne tàggat nañ leen ci euh, école du parti bu mu ci mën di doon. non non non non parce que comme li ma la wax aw ma mosuma am une adhésion active ci ci ci ci ci ci politique moo tax boo xoolee ànd soppi Thiès c'est un mouvement local c'est un mouvement local mais carrément c'est-à-dire lolo, euh, du du ay prétention mais objectif le bu ñu bëgg atteindre mais c'est aussi des propositions unies ñuy def au Thiessois ça n'a rien de prétentieux mais comme li ma la wax rek ci bokk. Mhm. am nga am nga droit am ci yéene am nga droit aussi am ci gis-gis ñun gis-gis bi ñu am moi. Euh, gestion communale bi dafa war a changer. mais ban commune bu est wala. commune yëpp nee naa la commune yëpp. yow fan nga nekk mais man Thiès Est laa dëkk. Thiès Est nga nekk Cité laa dëkk. donc mhm. Thiès Est mooy sama commune de base. Mhm. mais tout ce qui se passe à Thiès me concerne. xam xam nga turu turu turu turu mouvement yi bari na fii euh, euh, soppi Thiès hein, ay defar Thiès ay suqali Thiès ay ay yëkkati Thiès yooyu yëpp mu ngi fii mais souvent dafay am problème mu. Euh, Le ko li base solide muy un programme de développement local souvent c'est mooy nekk problème mouvement yep. yow lan nga fas yéene andi lu qui ci li fi ne. waaw man li ñun ñun ànd soppi Thiès li ñu andi ci lu est-ce que bari ngeen sax. ngay wax ñun ñun ñun mais tu auras l'occasion de de peser mais li tax nga invité ma. c'est hmm. parce qu'on représente déjà quelque chose à. non parce que tu es Thiessois rek sais précisément pour Thiessois la mais donc espérons que nous di nga n'importe quel qu'il soit parce que si je invité c'est parce que j'ai quelque chose à dire c'est parce que j'ai quelque chose à en tout cas un message à faire passer au Thiessois. Mhm. donc ça voilà message c'est-à-dire nous sommes credo yomb na pour une véritable gestion de proximité Nous, nous donner, nous devons fal ay conseils municipaux fal ay maires pour nous donner la population que le gouvernement central. donc si vous avez la vie dans les quartiers doit concerner les communes l'organisation des quartiers tout ce qui se passe dans ces quartiers mm-hmm. nous mu jóg jëm ci communes C'est ce la ñuy faire. mu jouer à la commune son véritable rôle. Ce ñuy nous maanaam tey yi les écoles élémentaires dépasser les marchés. dépasser les postes de santé c'est-à-dire buñu si budé inaugurer jour maire bi les conseillers concernés di gëj ci infrastructure bobu que lan ngay gis six ans après da ngay gis mu. à l'approche communautaire. mais ça a dire proximité Nous proximité c'est-à-dire proximité la que tel maire population bi ñu gis un ministre wala ñu gis un président de la république à la télé mo gëna un maire les activités du conseil municipal population bi duñ ko alors qu'ils doivent qu'elles doivent être informées. est-ce y a ngi informé sur la gestion de la commune de Thiès C'est bu baax C'est budget ñaata la pas montant de façon exacte mais je suis sûr qu'ils sont à près de 700 millions. -hmm lan lan lan moo des Thiès Thiès d'abord lan mo fa lan mo fa doxul ba nga taxawal euh, mouvement da nga dem élection. dañuy dem élection dañuy dem élection c'est-à-dire c'est c'est un mouvement yenu manam delouul ci sama jëmm ji man te ça ne s'arrête pas à ma personne. Mm-hmm. donc c'est un mouvement te dañuy dem élection bu ñuy dem élection aussi dañ ci fassiyene and ak bépp Thiessois boo xamante nii euh, suñu offre ñun d'accord nga ci te yow tamit li ngay indi dolli ko ci suñu offre ñu proposer ko à la population. nan nga gisee Thiès Est boobu ngay wax. Mm-hmm. Thiès Est boobu ngay wax li ma diagnostic bi ma def léegi rek moo nekk à Thiès Est. Mm-hmm. li ma la wax mooy la population xamuñu lan mooy activité conseil municipal bi infrastructure yi yi concerné la municipalité yépp boo ci jël boo ci jël mi ngi délabré wu

dafa am budget ñu koy voté. année budget bi mu nekk xaalis boo xamante ni day génn ñu ciy fay salaire di ci fay leneen ak leneen mais li ay investissement yu jëm si commune bi. Mhm. investissement nag nekk loo xamante ni foo ko def dafa war a feeñ. donc commune boo ko yoree 10 ans xar kanam bi changé wul ñun ñi fa dëkk mën nañu évaluer. lan nga lan nga tuddee xar kanam. xar kanam mooy jëlal champ de course jëlal champ de course. Mhm. si loxo municipalité bi la nekk.

infrastructure bu ndaw donte ne qualité bi besna mais li lay wax moy bo ci jël école yi école yi bo jëlee école yi ñun dañuy parce que ñun loolu buñ koy wax c'est parce qu'on dañuy dem visiter infrastructure yooyu ñun dañu nekk ci école yi nekk ci marché yi nekk ci poste de santé yi xam nga loolu lu tax may wax may dëkk aussi ci di wax infrastructure yu mel noonu parce que population bi yooyu la ñuy jëfandikoo c'est-à-dire dafa am ay mbir yoo xamante ñun ñëpp ko bokk kenn ku nekk si ñun boo xëyee war a dem marché ci marché bi la gën a jege ngay dem soo feebaree ci poste de santé bi la gën a jege ngay dem donc commune bi dafa war a jóg jàppale bu baax a baax ces ces ces en tout cas ces soit outils yooyu ñuy utiliser beneen bi mooy. école école yi école yi maa ngi koy bëgg a wax sànq école yi. Mm-hmm. bu année bi di commencé da ngay gis commune bi def ay dotation waaye commune bi xam na ban ñaata ñaata école ñoo am à Thiès Est donc buy def dotation waru nekk dotation boo xam te ni day indil directeur yi problème maanaam da war a nekk dotation bu matale. mais kon xam na ne commune aussi seen seen seen doole bariwul. waaw seen doole bariwul en tant que en tant que mouvement seen doole bariwul en tant que mouvement citoyen euh, euh, xëy na yaa ngi joxe ay proposition c'est c'est pertinent mais lan ngeen dafa gëm yéen. waaw euh, d'abord seen doole doole commune yi bariwul loolu ñun on n'en disconvient pas. Mhm. mais dama ni. mais dama len dolel len ci planification. la baax lan moo tax dama len dolel ko ci planification bu baax. Mhm. bu bu sa doole bariwul da ngay xol fo meuna dole ji nga yor as nga concentrer ko fenn li nga fay def mu jariñ dara après nga wat pour lenen mhm. ñun suñu vocation du jappelé maire bi ñun suñu vocation moy taxawu askan bi bo né lan lañ def pour askan bi je pourrais répondre mais suñu vocation du taxawal parce que aussi dafa am ñu ñu fal am ñoo xam ne faluñu leen ñun ñu. maintenant am nañ ay nit suñu ginnaaw. lan ngeen Quel kañ la mouvement bi ça Le mouvement bi ñi ngi def lancement le 5 janvier 2019. mu nekk alternative citoyenne. damay wax citoyenne parce que ñun suñu activité yi ci ëpp dañ ko ci citoyenneté Nous, naa la du école parce que on y va pour mettre les élèves à l'aise dans les salles de classe Ballet, nettoyer raxas muy salle de classe muy toilette. Ah, euh, ay lieu public bo xamanteni gis nañ ni xalé yi ñi fay dem diko utiliser wala ay mag ñi fay dem diko utiliser ñun ñu japp ne nañu nettoyer fofu nit ñi nekk fa ci nekkene bu baax ñi ngi koy def loolu ngeen fi ko ñi ngi organiser ay conférence publique loolu ngeen fi defagum ngir bëgg laaj mairie bi bul ne rek bul ne rek parce que yow mi suma la est ce que mëss nga dem nettoyer fenn fo xamanteni gëm nga ni askan be ko mom nga nettoyer ko préparer len fa parce que même bu dé ben man doxalu taxaw la mouvement laaju moo baatu askan mais citoyen nga loolu on moo tax man la baatu citoyenneté bi dafa am solo baatu citoyen euh, euh, tur la rek bu fi ne mais ku ne xam na ne si li nga xam ne moom mooy seen moo leen tax nga boo nekkee citoyen dafa am lu koy jëmmal soo nekkee citoyen parce que sànq da nga ma laaj lu tax may taxaw woote soppi ma ne la c'est parce que je suis un Thiessois mais li ma nekk Thiessois mhm. aussi citoyen sénégalais la les plus xew ci Sénégal aussi doivent m'intéresser. donc donnez que citoyen yow tey bu vote amoon da ngay voter parce que tu es un citoyen sénégalais donc un citoyen est concerné comme que tu es concerné nag waroo toog ne lii du sama non non ce que ci mën a def def en attendant ngay jot outils yi nag bi permettre nga apporter changement bi nga donc ñun li ñu nous apporter ci changement actuel ñi ngi koy def mooy bu Covid amee ñu gis am na xamante ni ay ndongo ñu nga fa soxla nañ masque soxla nañ gel soxla nañ saabu ñu yëkkati ko dem jàppale leen ci loolu am na bu ñu gisee ne am na ASC yoo xamante ni soxla nañ ay ballon même bu dul ase ay jeunes yuy regrouper wu di jouer soxla nañ ballon soxla nañ maillot mais ñi ñëw jàppale leen ko ay mosquée ñi ngi fi soxla nañ tapi buñ ko amee mais ñu ñëw jàppale leen ko loolu lañ mën a def en attendant ñuy jot l'outil outil bi nag mooy la commune su ma nee ñu jot du man ma jot mais que ni alternative citoyenne ànd soppi ak ñim ci andal ñom buñu joté nak maintenant apporter les changements yi ñu bëgg moy nekk ci wetu population bi jege leen. Mhm. ànd ak ñoom liggéey laa ko. yaa ngi wax ci euh, jamono jo xamné ne ci conseil municipal le maire de la ville de Thiès euh, Talla Sylla la waxoon na fi jamono ñu génn que né euh, dañoo war a supprimer les trois communes Thiès dellusiwaat nekat ben commune jamono yi nak mu ngi wax suppression des villes. Mhm. Euh, lu ci mel ni ville de Dakar ville de Thiès Rufisque également euh, naka nga jangate lol ak and euh, citoyen alternative si Sénégal citoyen ànd soppi Thiès lan mo ci position si ñaar yooyu noonu. waaw xam nga man républicain la dama japp ne képp ku ñu fal yow yaay xol li nga jàpp boko défé mo gën ci Sénégal nga def ko. donc il n'est pas mauvais que ñi nga xamante ni ñoo yor gouvernement bi tay japp ne pour ñom suppression des villes Mogan. mais pour moi aussi war nañ comme en 2013 dañu indi une réforme parce que avons fait une réforme bu 96 ñu réforme ba 2013 nous réformer tout de acte 3 de la décentralisation mais réforme 96 bi une réforme qui a créé une ville am une loi spéciale qui a décrire les relations entre ville et commune d'arrondissement pour moi wala pour ñun ànd soppi Thiès position bobu moy bu baax bi. moy supprimer les villes maanaam ville conserver les villes. voilà mais niko loi 96 yi waxé won moy que ñu am une ville puissante bo xamante déjà les relations yi muy am ak les communes yi nekk ci biram c'est clairement défini manam duñu joom ci recette yi ne bi est-ce que ville la wara dem wala commune mais day am loi bu claire bu ko dans la ville bi yow yaay jàppale les communes ci sa doole yow yaa moom yii compétences. ne communes yi yéen a moom compétences. ville bi nekk coupole nekk ci kaw nekk ndeyu communes yi di leen jàppale. loolu laa gën territoire aussi. Sans mu am territoire non am territoire parce que moom territoire est mooy territoire de toutes les communes Les délimitation la laaj te loi bi ma lay wax ni en 96 délimité woon na y avait aucun problème. Mhm. 2013 nous avons changé les relations entre la ville et les communes les communes def leen commune de plein exercice teg la ville wàññi dooleem ville ma lay wax que la ville nous laan jàppale les communes dañu def inverse bi léegi dañu communes yi ñoo ville jël ci di jox. voilà donc ville bi que je gis la ville telle que décrite par l'acte 3 de la décentralisation n'est pas viable parce que nous dañu wàññi ville donc doole le ko, ce li nga def ce champ d'action wala cette puissance de wàññeeku. kon on nga le fait que. donc Talla la wax nous supprimer les trois communes Thiès est ci benn commune. donc déjà sur le principe de la suppression des villes je suis pas d'accord man lima ma gëm mooy que ni dañu war a dellu sur la réforme de 96 joxaat la ville dooleem. Mhm. maintenant su fekkee loolu mënul que te ñi fi nekk seen option mooy euh, du ñu l'article 96 la ville telle que nous mu actuellement elle n'est pas viable donc mën nañ ko dindi le maire Tal, c'est le mu wax ci suppression aux trois communes yi pour man régression lay nekk maanaam dellu ginnaaw. boobaa yéen du am sens de yéen politiciens yu ndaw yi nga xam da ngeen door a fël. du calcul du calcul euh, dinaa la bal baatu politicien bi ndaw bi. Hmm. baal la ko. bi ngeen ay politiciens yu ndaw baatu politicien bi sax mën nañ ci waxaat. Hmm. mais dañu nekkoon ci situation bu nous commune lañ amoon. Thiès du du dëkk bu ndaw ah. la commune de Thiès est kese kese kese boo ko jëlee ci région de Thiès benn wala maximum ñaari commune ñoo ko fi ëpp ci région de Thiès commune de Thiès est laa lay wax. Mhm. léegi nan nga bëgg a jëlee commune bu tol noonu nga ni da nga koy boolewaat ak Thiès nord boolewaat ko ak Thiès ouest pour mu nekkaat une seule commune dafa diis. dellu ginnaaw la daal dellu ginnaaw la te dafa diis te dafa diis maanaam li ñu war a wax mooy naka la ñuy gën a demee en profondeur la décentralisation bi ñu actuellement parce que principe décentralisation le simple nous décidons, décider nañu fexe ñu nous ñi nga xamante ni si bénéfice la décider les administrés ak qui qui administrer. Hmm. ñu leen mais si nous ne yow da nga bëgg a ñi nga décider les administrés ça pose problème quest que Est déjà avec, ay réformes yu bari war nañ ko fa indi. Hmm. moo quest dernièrement que c'est? Nous Est nañu comment est-ce que la ñuy ben centre d'état civil secondaire à Fayou parce que c'est une population boo xamante nii bu concerner Fayou qui euh, Est la bokk dina concerner Fayou concerner Cité Lamy concerner les parcelles parce que nous sori ak la euh, commune fi mu donc bu ñu fa tijjee centre d'état civil euh, secondaire dina l'en permettre euh, pas centre d'état civil secondaire Qu'est-ce que c'est ça mais même les services municipaux war na am yu ñu ci mën a jël ils se sentiront plus. pour proximité am entre seen mbokk voilà ci commune bi ensuite euh, dina yenn ci ay fuites am dit que ni su que sama dit mu dëkk ci gox yooyu. Thiès Ouest Ouest te man Thiès Est pour man ça pose problème mhm. solution bi la que la commune dem yaa ngi wax ne euh, dama la koy nangul euh, doo wax yow mais le mouvement alternative citoyen and euh, soppi Thiès ngay wax zone S, nga nekk mu nekk nag zone bu xaw a particulier ci élection yu ñu dëgmal parce que ay leader yu bari ñoo fa ne Ablaye Dieye mu nga fa Maodo Malick Mbaye également le maire de la ville de Thiès Talla Silla également Pape Siré Dia fa la nekk ak yeneen leader est-ce que tey jàppoo ne alternative citoyen ànd soppi Thiès yéexul jóg parce que boo mooy wax ne xëy na yéen a ngi door a am at ba ngeen ko tàmbali ba léegi est jàppoon ne leen jóg ci laaj ko bi nu es am nañ deux ans am nañ deux ans te ñu ngi ci biir askan bi tooguñu benn yoon. ab Ablaye Dieye fa nekk ah. tooguñu benn y a pas de souci c'est-à-dire ñun ñëpp a ànd xam li ma lay wax sànq ne la alternative citoyenne ànd soppi Thiès dafa tijjeeku. ñun amuñu limite ne duñu ànd maanaam bu élection jotee nañu teg sur la table intérêt wu cees Thiès Est. yow ci pan parti bokkoo ci benn parti. waaw man bokkoo ci benn coalition également bokk ma ci benn parti bokkuma ci benn coalition man ànd soppi Thiès laa bokk. loolu mooy lan. loolu mooy ànd soppi Thiès laa bokk. yow réew maa ngi fii c'est mm-hmm. majoritaire à Thiès. Mm-hmm. ñëpp wax nañu la parti réew mi euh, depuis 2009 moo fi teg tànk. Eh, Ken, danaka mën nañ ne guy gu fi samp la ngir jëlee ko fi danaka jafe lay jafe-jafe lay nekk benn bokk yaakaar ñëwaat coalition nguroog sow dollee ko ci ah, ah, andu soppi Thiès est ce que yaakaar nga ne te ngeen a dem jokk ji ci ci ñooñu rek xam nga waaree bi ñu jox seen bopp benn bokk yaakaar du jox boppam ak keneen ko tudd aussi du jox boppam dañuy dem dagaan baatu askan bi xam nga dagaan la dañuy dem dagaani baatu askan bi ci dagaan boobu nag ñu gëm nañ ni

comme puissance politique. Ben parti politique. ankay déggoo ma on est très ouvert dinañ and ak képp ko xamante japp nga ni ñun suñuy offre doy la nga proposer une say offre buñu évaluer xam ñoo bokk ay gis-gis. ci lu jëmale kanam Thiès dañuy and ak yow inshallah. alors ñu dem fële ci assemblée. te problème te bu boba nga mhm. baal ma bu boba problème mu leadership du jitu ci table ji parce qu'en réalité li ëpp solo. mooy problème leadership bu jubee mom boba do dem pourquoi pas. ah mais il va ma la wax sànq ñi depuis 2009 nekk dans la zone S, nekk ay Kangam. fait que problème leadership nous ñoo ñoo fi ñoo fa teg tànk ay Maodo Malick hein, le maire de la ville de Thiès hein, euh, député à l'Assemblée nationale premier vice-président à l'Assemblée nationale hein, ay Ablaye Dièye ñoo ñëpp dans la zone S. waaw nan l'alternative nan la alternative citoyen fas yéene def ak ñooñu. xam le principe le principe lan la Thiès gis. am na droit dagaan baatu askan bi na ñu nekk président de la république ñun dañu gëm ne offre la ñuy defal à la population tiitalu leen loolu tiitalu leen suñu tiitaloon du ñu jóg bu ñu tiitaloon aussi bu ñu jógee dinañu dem wuti fu ñu làqu am féete dem benn bokk yaakaar wala dem feneen ak feneen dem ñu fenn dañoo téye bi bi présidentielle jotee dañoo toog réunion ku nekk wax mouvement bi décidé ne on reste sur une logique la logique c'était quoi c'était de participer aux élections locales avec une offre c'est une responsabilité non du tout. parce que bu pas parmi les candidats parce que wax naa le mouvement local la ñu yor créé, koy créé pour apporter des changements dans la gestion des affaires communales donc c'est tout à fait logique. Mhm. alors dans l'assemblée nationale euh, jamono ñu dit ku ne xam euh, euh, la loi relative à à l'état d'urgence le président Macky Sall ñu dal di koy voteel gën ko dolel euh, ci euh, jamono jo xamné mbass mi mu ngi fi chaque jour bu ñu xëyee kaay di gën di yokk ñi ci faatu également di di gën di yokk gis nga li xewon ci couvre-feu bi bi ko président décrété ñu bari ci ndaw ñi génnoon nañu ci ci mbedd mi taali ñen japp na nag décision bu mu jël la boo da ko jël par précipitation nak nga ko jangaté waaw man comme ni ma la ko waxee sànq républicain la bi mu ko waxee également man à travers samay réseau man wax naa ne woote naa depuis premier defoon naa video de sensibilisation duggoon naa aussi ci ci quartier yi ci ñi ma am ñi nga xamante ni mën naa dem si ñoom ñëpp dem naa si ñoom ne leen li kilifa yi jël ci décision nañ ko respecté donc man lu may woote mooy ñu respecté couvre-feu bi benn obliga maanaam rassemblement yi nga xam ne dañ koo tere ñu respecter interdiction yooyu ak leneen ak leneen loo xam ne kilifa yi tere nañ ko parce que réew mi aussi organisation bi loolu la dafa am ñu ñu fal ñoom ñoo jël ay décision jàpp nañ ne ñoom jàpp nañ ne parce que tey man gëm naa ni. mais jël ndogalu réew mi yëpp dëxañ ko ci kenn nit président de la république euh, yàlla tere tey bu ko bu ko ndog jotoon.

bu ñu ko jëlee bu ñu arrangé wul citoyens yi war nañu xool les voies et moyens yi nga xam te mën nañ fa jaar ba attaquer benn décret c'est possible ñu attaquer mais quant à défier l'autorité dugg ci commissariat taal ko wala attaquer ay policiers man loolu du ma ko encourager te dama koy ñaawlu. bu dee nag ci wàllum loi bi ngay wax ni. mooy réforme bi ñu indi ci loi bi nga xam te ne moo état d'urgence ak état de siège. de siège te ñu indi si lu bees. mooy situation bi nga xamante dañu nekk ci catastrophe naturel wala sanitaire man ñaari observation laa ci am ak peut-être deux wala trois questions bis njëkk mooy brosser nga ko man républicain laa comme li ma la wax bokkuma ci ñuy bëgg ñuy jël prérogative ci assemblée nationale di ko jox président de la république bokkuma ci li bëgg loolu te loi bi loolu lay def dafa jël loo xamante nii euh, maanaam président tey bu jëlee décret ne day def Euh, état d'urgence bu matee 12 jours il war que dem assemblée nationale bu bëggee ñu prolonger ko mu ne que ak lourdeur yi am jaratul assemblée nationale ça veut dire que mën prolonger au-delà de 12 jours mën na prolonger te du assemblée nationale donc jël na prérogative boo xamante ni ci loxo assemblée la nekkoon loolu respecté principe le principe du sacro-saint en démocratie le principe séparation des pouvoirs mhm. donc rafetlu. dafa mel ni séparation des pouvoirs moom xëy na ci tur bi rek moo fi nekk waaye euh, nekkul lu ñuy jëmmal. en tout cas ak li xew ni indi na ay jeex jeexi jaax d' autant plus que ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jël prérogative si ñoom ñu ci ëpp am nañu opposé wu mais ñu ci ëpp dafa mel ni dañ cee sawar. wala ñàkk a mën aussi. sa ñàkk ci mën dara mën nañ voté non mën nañ voté non mën nañ voté contre la loi. donc ñu pour xam ne assemblée nationale majorité mécanique moo fay mécanique bi moy problème majorité bi ci démocratie la président bu amé une majorité à l'assemblée nationale da kay yombal mom décision manam politique yi muy bëgg a té am ci yoo xam ne assemblée nationale da kay yombal bu amé compréhension entre ñaar yi day yombal liguey bi je suis d'accord mais ça doit pas être une majorité mécanique comme ni nga waxé mm-hmm. dem ci ba lo xamanteni ni assemblée ko momone ñu nanguko lolu mom moom ça pose problème benen bi moy loi bi dafa am lu ko jitu parce que dañuy wax en droit la hiérarchie des normes mm-hmm. donc dafa am constitution am les lois après li ci des yëpp constitution bi moy ndey sart réew mi non la ngay waxee mm-hmm. bu ñuy jël loi dafa wara conformer wu le principe de nga constitution moom moo ko édicté. boo xoolee loi bi dafa am article 69 boo xamante ci article boobu la ñu waxee président bu jëlee décret au-delà de 12 jours su ko bëggee prolonger il faut mu jaar assemblée nationale. donc balaa loi bi ñu ko il fallait revenir revoir la constitution l'article 69 notamment xolaat ko réformer ko ba pare soog a indi loi loolu lépp lan lay mandargal day mandargal en tout cas président de la république en tout cas ci bii nii ci wàll wi am na excès de pouvoir parce que jël nañ ci loo xamante ni ñi jiite woon sénégal ñëpp député yi nekkoon sénégal yëpp depuis lors jàpp nañ ne assemblée nationale la war a nekk donc pour man dañ ko waroon bàyyi ci loxo assemblée nationale waruñu ko woon jël di ko joxaat président de la république mu am plein pouvoir sur ça boudé comme nous ko gouvernement bi waxé dafa am ay lourdeur ci procédure prorogation ou délai état d'urgence bi boudé dafa am waron nañu def une réforme à l'Assemblée nationale pour vote bu nag lañ koy gën a au lieu de jël prérogative bobu di jox assemblée nationale. delu ginnaw ci walu démocratie delu delu ginnaw la ci walu bi du lu may lu man. Mhm. légui nak dafa am sama ben doyen. inspecteur du trésor qui a été ministre du budget pose des questions à am solo mooy que ni xam nga état d'urgence la à état de siège Les ñu indi situation boo xam ne a catastrophe naturelle ou catastrophe sanitaire mais définition où la catastrophe naturelle et de la catastrophe sanitaire dañ ko a def ci ambiguïté L'Assemblée nga assemblée nationale mooy législateur mais qui exécute le président de la république ak l'administration nous am une propre vision ci lii mooy catastrophe naturelle ak li moy catastrophe sanitaire loi bi daf ko waroon définir ensuite benen questionnement bi mu def bu am solo moy état de siège. bu ko décréter wala ñu décréter état d'urgence. ku ko respecté wul. xam nañ yan daan la ñu war sa kaw. Hmm. mais ci cas bi kenn définirul ku respecté wul. bu ñu nekkee en situation de catastrophe naturelle wala sanitaire Quel définirul lan moy Euh, daan yi nga xamante ni war nañ koo daan nit nga xamante ni respecté wu ko. Mhm. cest à dafa am lu ñuy wax légistique mooy naka la ñuy bindee ay lois naka lañ koy bindee la rédaction. Mhm. des lois des décrets ak yeneen euh, actes yi nga xamante ni yëpp autorité mën na ko jël dañu war a dellu ci ñi nga xamante ni ñoo xam ñoo ko jàng ñuy bind parce que réew mi amul benn décret bu ñëw ne cundum amul benn loi bu ñëw ne cundum loo gis dafa am ay visa Il visa avoir conformité entre loi et le décret La constitution et le décret Il faut avoir dafa mengo am dañoo war a France loolu ñu bari le président de la République euh, le président de la France bu président de euh, rek président Macky Sall aussi il koy fekk ci loolu. ñu bari si Sénégalais ñu ko koy reproché. waaw man gisuma loolu man nag damaa gis président de la République le conseil de défense ses conseillers am ses ministres l'administration publique sénégalaise donc mais Covid quand même dafa xew France xew États-Unis xew Angleterre euh, ci gestion Covid. Mhm. pour man l'État du Sénégal décision yi mu en parfaite en tout cas indépendance ci lañ ko mhm. ko arrêter propagation maladie bi mëna améliorer situation bi ba ñi feebar di wàññeeku ñi décédé di wàññeeku. coowal jàpp ma couple la par rapport avec les français. Euh, coowal vaccin bi euh, jamono ji wax ji bari na ci euh, naka nga ko jangaté ñu bari amna professeur yi nga xamné seen xam-xam match na jëm ci walu santé batay amaguñu ci ben point commun gu d'accord ci ci walu vaccin bi.

mais heureusement aussi que nous avons réservé réserve ministre de la santé wax ne fait ñuy les vaccins chinois parce que sama un bébé. bébé périodicité wax nga à l'hôpital mais da notice explication pour nous pourquoi nit ñi am peur boobu. ci manque de confiance ci eh, envers l'État. mais lu lu manque de confiance. mauvaise communication mais na état bi donc. parce que ministre de la santé et de l'action sociale defoon na fi benn Twitter euh, di wax ne sénégalais yi am dose de vaccin yi bu xam ne jot nañ ko euh, dinañ ko tàmbale en attendant ñu jotaat beneen dose. boobu la lay wax que ni am temps après mu retiré ko. waaw parce que am na ci réserve réserve bi mooy daf ni il faut ñu won leen résultat wu essai yi bu leen doyoo ñu soog koo je suis d'accord sur ça c'est-à-dire deux xam Turquie président le vaccin chinois mais c'est parce que nous, à l'interne vaccin bi donc nous, nous su scientifique sénégalais Nous seen xam-xam ci lolu doy nous Nous vacciné mhm. alors ñu euh, euh, ben laaj bu mujj wala ñaarelu laaj yi nga xam moy mooy jëm nak ci walu walu politique ku ne gis na le président Idrissa Seck euh fekkoon ci ku gi lu melni xamé nak dang ko yegg président Macky Sall euh demoon na ba yegg sax ne décret dotu ko fal ñu xey ben jour xey gis mu dugg ci gouvernement ñu jox ko institution euh CSE bi nga xam ci ay kàddoom japon na amul njëriñ ci euh, ci Sénégal euh, naka nga jàngatee euh, dugg ci Idrissa Seck ci gouvernement man jàpp naa ni il en a le plein droit bu bëggee mu nekk ci opposition su jàppee ne aussi war na dem ànd ak pouvoir bi jàppale pouvoir bi mën na dem jàppale pouvoir bi donc y' a j'ai aucun souci par rapport à ça. ça va au-delà de ça. bu la demee lay wax voilà léegi nag dama am benn problème man. c'est-à-dire le contrat moral bi ko lié ak les sénégalais. voilà loolu mooy sama réserve man c'est-à-dire président Idriss Seck bu mu jéem a expliquer ne waxuma woon lii lii laa waxoon li waxone dafa leer maintenant nit matul nit mën na wax mu deñ ça remet pas en question honorabilité wu nit ki. est-ce que loolu rek yombal nga ko trop hein mais nit bay wax mu deñ c'est ce qu'il a fait mais xam nga lan moo lan moo gênant dans ce qu'il a fait mooy mu ñëwaat di wax ne dama ni woon xaw ma terme bu mu utiliser. Mm-hmm. fasuma yéene fasutuma yéene alors que ci un plateau ci une occasion il a été très clair très clair il a été ferme dans du dem mais ba comme le ma ni wax nit la nit day wax muy parce que jàppoon na dit, ak Macky Sall waxtaan nañ am nañ ay place de convergence mën na dem c'est un parti libre c'est un parti autonome mën nañ c'est seen décision dem jàppale mm-hmm. mais buñ ko j'ai a justifier parce que aussi dafa am éthique am morale boo xamante nii euh, nit ñi war nañ koo mën respecter même en politique parce que ñun ay novices, lañ comme ni nga ko waxee sànq ci politique dañuy woo sunu ay rak dañuy woo sunu ay mag yo xamanteni nii peut-être politique intéressé wu leen woon dañ leen di wo ñu ñew mais ñom buñuy gis xeetu doxalin bi da leen di décourager. Mhm. alors laaj bu mujj bi moy euh, euh, mouvement alternatif citoyen ànd soppi Thiès fan la jëm. lan moy taxawaay ak lan moy perspective bi. ci li ñu nekkoon la ñuy continuer mooy nek ci sunu ay activités citoyennes si ci sunu activités sociales ak ci activités politiques massification sociale luñ def pour ñu def ko citoyenneté ko am bi ñu am di préparer élection locale yo c'est dommage et c'est dommage <laughs> et c'est dommage pour une démocratie mhm. ba léegi xamaguñu kan la mais ñi ngi koy préparer di woowaat Ceesuwaa yépp di leen tàllal loxo pour ñu ñëw ànd liggéey xam jatogol. nekk candidat jotagul jotagul mooy ci ñetteelu ñeenteelu man ñetteelu mandat président Macky Sall buñ ko waxee mën a jotagul xam nga lu tax man sama candidature jotagul mm. damay dem di waxtaan ak samay nawle parce que jàpp naa soppi bi may wote soppi bi andi soppi ties di wote du du mouvement bi kese moko man dañ ci wara and ak sunu ay nawle te comme sunu ay nawle nañ nak dañ leen di wo ñu ñew ñu tok waxtaan on veillera à prendre le meilleur profil mu jité ñu s'il le faut ñu and ak mom wuti commune bi. jërëjëf amon nañu mbégte dalal la kaddu gu mu jigi mais di lu waxtaan bi xaadim di le euh, bamba di le féliciter. le professionnalisme bi l'encourager la encourager di kontaan ci di ay jeunes yu mel ni la qualité bi am professionnalisme bi di contenter également ci infrastructure bii ñu ñëw de euh, di encourager également le président Pape Doumbia ci que bi muy def yal na yàlla jàppale ko gën ko taxawu di la remercier yow di remercier say collègues yi ñu andalon yëpp ci émission bi di remercier Pape Selam suñu suñu confrère la un bu la. <laughs> wax que de plus en plus d'olé. ci mhm. donc nañu gën moi moytu je crois que respecter la distance bi moo masque. Mhm. donc nous ñi nañuy sol masque yor gel distance Ce que mhm. ko defee fait, Inch'Allah, respecter couvre-feu jërëjëf comme que gars yi ngi ci mbedd mi di liife quoi. jërëjëf ñu amoon euh, mbégte doon ko dalal moom euh, Demba Niang ma jaxate ñaa ñu gën ko xam nag ci Demba Niang nekk président du mouvement alternative citoyen ànd soppi Thiès ñu ñaan yàlla yàlla nañu yoon yoon nañu soppi Thiès ba mu jël xar kanam bi nga xam ne moom la askan wi yëpp bëgg jaajëfal ko bu baax a baax amoon mbégte tamit moom it di ko di ko di ko dalal parce que gis nañ action yi ngay def. au niveau de Thiès Lol aussi ñu koy ñu koy ñu koy rafetlu bu baax baax jaajëfal mbokk téléspectateurs yi une émission nous prestige àjjuma bu jot 21h jàpp 22h jox leen rendez-vous prochainement euh, bii di ñëw rek incha le ñu fas dalal euh, Cheikh euh, Cheikh Ndoye bi nga xam donc mu nekk au niveau de la zone nord moom la ñu fas yéene seqal waxtaan àjjuma bii ñu dëgmal inshallah allah mbokk yi jëf.